non loolu nagaaw yow rek lay xaar mënumaa toog lu bari <laughs> waaw. ala accooni ala ay da woon na ma di baalu ban lan baalu amul baalu de wax bi day leer nañ ala accooni waaw yi bu leen ma yëngal de dàqu leen ma lakk pël bu ngeen ma mer bu ngeen ma mer loowee pël yi bu ngeen ma merloowee ayda moom doon woo mig baal am baalu de wadaan la baalu de ala baalu li ala accu de tey réew mi wàcc lan dix mille personnes timma gars yi dee leen tàppate écran bi dee leen tàppate écran bi dee leen tàppate yéen man de ni ngeen ñàkkee fay da tàppataas rek mënu leen ko yéen tàppate ni mu yombee écran bi ngay téye naan ko nii lii nii rek nii nii kese mënu leen ko dee leen def nii ni mu yombe lii kese waaw lii ku ne def nii loolooy tàppate na gaaw waay ah yéen wér ngeen dix mille personnes du ngeen lii mu jóg lii laa bëgg lii laa bëgg waaw góor waay ah ah laa la wattu waay gi ana rugi rugi rugi laay seet rugi laay seet rugi eh rugi lu gaaw man xaar laa gën a bañ bugguma xaar moi j'aime pas xaar ah TikTok Galsen maa ngi lay ziar gis naa la ngay seetaan Sarata maa ngi lay ziar Sénégal gi yëpp a ngi fi rugi maa ngi ubbi demande yi bu dee yaa ngi may seetaan jëlal demande bi gars yi di leen bi di def nii di def nii di def nii mu gaaw tuuti. ndànk rek ndànk rek sama gaay ndànk rek waaw ndànk rek waa mais rugg mi du gaaw yow ba ma yëpp demee ni yow fan gaaw aw ma temps aw ma temps Rougué Rougué dina ñëw de yaa Rougué mooy ñëw nag Rougué xanaa xamoo Rougué ma def loo live bi Rougué moom moo a wax pour ma def live bii xam nga ñu bëri senegal yi da naan Adama dafay kaa Adama day kaa Rougué Adama nangam nangam Rougué ci boppam moom moo ne ma live fu tey bii naa ko def pour mu leeral askanu pëlëm ak senegal waaw kay ma bëgg mu leer waaw. waaw kay eh Rugi dugg naa de dugg naa def naa demande acca waaw kay taalaay bañ de waaw kay lii laa bëgg temps moo amul waa kii lu ko déconnecté yow defaatal demande maa ngi dindi demande yi defaatal demande defaatal demande gaaw maa ngi dindi demande yi defaatal sa demande aca ruugi defaatal sa demand ok ruugi defaatal sa demand ok Rougui maa ngi lay ziar. delloo ziar Adama. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm alhamdulilah. waaw léegi na la bàyyi nga nuyu. Euh, première mm-hmm. demande bi ma lay laaj mooy Rougui fan nga xamanteeg Aida. Mm-hmm. xaaruma yow Aïda woo na léegi moom ak frère am billaay di ma baalu. moo tax laaju ma la lool na la ak yow la concerne man ayda woo na ma te loolu concerné wu ma. parce que déjà wax na nee na bëggul mu. déedéet man sama. waaye Aïda la ñu woon. déglu ma wuy ma bu baax rugi bul dugal sa bopp. yow yaa ne naa def. waaw dëgg la sama laaj déglul ma wax la bu baax waxu nit. man xamul Adama bu baax laa nag. borom xol bu rafet laa damay dimbali nit ni ma def sa vidéo bi ñëpp ngi naan ma Adama naafiq la Adama day faral nit ruggi da koo jox xaalis ruggi da koo nangam mosoo maa fay. non non man joxuma la dara. xam nga la kon kon léegi su lay wax. xam nga la waaw comme que Aïda woo na la. mu ne la carrément du man. waaw comprendre man. waaw Aïda wi yow yaa fuddum ummu keneen. non non yaa fuddum ummu yooyu nekkoon mu noppi man ngay waxal Eh, ok d'accord. waaw Aïda Aïda kii nii xamante xam nga lu tax ma ne la nga def live. comme que moom dalaa woo mu waat carrément. nee na defu ma wax la wax bi day ànd ak dal. toog ma toog. waaw da ngay déglu ma déglu ma wax la. soo dee waxal da ngay dal tuuti nga wàcc tuuti. bul tiit bul fari fari amuñu dara lu ñu fiy tiit ak liy wax li xew xew na ba pare dama ne dama bëgg nga jël sa temps nga leeralal ma yow Aida naka ngeen xamante loolooy première question luy problème bi waaw. man Aida TikTok lañ xamante. ah TikTok ngeen xamante. TikTok lañ xamante. waaw mu def ma message neen dama ko neex genre yooyu noonu defoon na message sax presque gisuma ko woon tontu ma ko léegi bu ma ma defoon benn jour live excuse-moi wolof bi leerul. damaa defoon benn jour live mu dugg si wax ba pare après mu génnaat defar ma beneen message mu ne ma bandelam <coughs> jox ma sa numéro ma jox ko sama numéro léegi mu ne ma gommewu ko sax xam naa ne daf maa bëggoon ni rek après ma ne mu ne ma gommewu ma ko gommewu ma ko ma ne ko loolu du dara ñu commencé di waxtaan ça va ça bien foo dëkk mu ne ma Thiès ma ne ko yombal après man nag mun naa ne ba léegi xaw ma seen kër wax dëgg yàlla du sax fen xaw ma seen kër musuma fa dem waaye moom day ñëw fi nekk fi ay semaine ay jour day yàgg fii moom te day nekk ci man. ok ñaata at de amitié ngeen am ba ngeen dalee ànd ba tey ñaata at boo ko xoolee ba ngeen nekkee ay xarit ba tey. daawaat daawaat géej 2020 tey 2021 ma nee 2020 keroog xam nga daawaat daawaat sur daawaat géej du 2021 vingt 2021 la. bi ma nee deux mille vingt calculé ma sax daawaat géej. Hmm. ok waaw ngeen xamante maana ba ngeen xamante euh, ba léegi euh, durée deux ans la yaa may dégg allo allo allo allo allo allo Rugi. naam. ma ne ba ngeen xamante ba ba léegi durée deux ans. allo waaw. tëjal sa micro bi nga tijjiwaat ko parce que da ngay écho da ngay tij waa tijjiwaat ko tëjal tijjiwaat mu coupé defaatal demande. defaatal demande demande waatal allo mais Rugi il faut nga sori ñooñu nga nekkal seen kër man yow laay waxtaanal waxtaanu ma ñoom damaa bëgg kaa bi gaaw ban jóge fi tàggatoo Mm-hmm. waaw kay il faut nga concentré wu maa wax ñële nekk fi naan la huddi hu yaa ni dégguma loolu wax correctement ak man loolu laa xam waaw ba ngeen xamante ne durée deux ans la. waaw. ok léegi euh, ñu ñëw ci li jëm ci vidéo yi yow vidéo yi ba nga ko defee kan nga ko doon yónnee sa copain la woon kooku. waaw. yéen ñaara doon génn. ba léegi. ba léegi yéen a ngi génn. waaw. ok léegi ba nga ko yónnee ba pare sa compte bi moom tasu ko tasul vidéo yi ok léegi allo. du ko mos a tas. kon vidéo ba pare sa compte bi moom tasu ko tasul vidéo yi ko mos a kon vidéo yi nga bi tasu ko nga tijjiwaat ko bul ngay tëj. sa tët tët tët mais kan mooy woo mbaaye maa ngi ñëw ci yow bàyyil ba ma pare yow yaay tëj defaatal demande yéen ñi demande nii yépp seen yoon newul ci kaa bi mbaaye naa la jël après euh, rugi xam ok duggaat na kaw ak gën a metti ci àdduna bi allo yaa may dégg. maa dégg waa. dama bëgg nga concentré wu booy wax man amul génn ak duggu bu dee da lay woo nga def sa téléphone mode avion. connexion mooy daw. waaw li nga may dégg du connexion xuma da lay woo xuma bu dee da lay woo da ngay def sa sa numéro mode avion vidéo yi ba ko defee yónnee ko sa copain bi sa copain bi moo tas vidéo yi. wala kan nga yaakaar ne moo tas vidéo yi man lii jàmm la ah. dégguma loolu allo yaa ngi may dégg allo waaw yaa ngi may dégg maa ngi lay déglu waa ok léegi vidéo yi ba nga ko defee yónnee ko sa coppe bi sa coppe bi moo ko tasaare wala kan nga yaakaar ne moo tasaare vidéo yi amul connexion amul lii léegi rugi bàyyil ma woola whatsapp nan ko def appel whatsapp nan ko def appel whatsapp waa ma lii lii réseau pël yi moom jaaxal nan ma def pël yi nii lan mel ah pël yi réseau yi nu mel mi yéen baal ma léegi baal ma wala appel WhatsApp jëru ngay dugg.